di remercier aussi euh, Bougane hein. il a été là. Mhm. waaw nit ku baax la. Mhm. sama xarit hein. ki nga xamanteni tion dafa taxaw jaaka taxaw ñu ne ko dénk nañ la Wally muy PDG. Doro waaw maa ngi koy gërëm bu baax. Mhm. mët na taxaway tion sec. taxaw na taxaway tion sec. taxaw na tion sec ba bañu duggal ko ci bambel mom daf ma yoni Euh, nee na fii RFM la te lépp dafa war a leer fii mu leer léegi nag euh, dafa bëgg ñu leeral rek lan mooy nice booy nice pas nice ak nice ñu jël loolu moom duñ fa sax taxaw dangay tontu rek après ñu dem. yaa ngi dégg ñu ngi laajte nice yaa ngi dégg loolu du yuuxu. <laughs> loolu garaaw na de. <laughs> da tontu rek ñu romb. da tontu rek ñu romb. waaw moom nit la boo xamante nii dafa bëgg dafa bëgg lu baax dafa bëgg dimbali waatee. Mhm.